صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق ci yiw oote la ci lu baax oote la ci liggéeyal baay mu joxoon ñu ndigal ne fii ñu toll ci wàllu liggéeyu esplanade bi muy mbaar mi ñuy gàmmooyee dafa soxla ndimbal pour ñu mën koo eggali ci loolu fond bi waxtaan ne digalu kilifa bi moom topp rek la laaj ci lañ jógee ndakaar tey ab délégation bu mag ci njiital nga Gissé vice président ak man mi tey membre conseil ak Mouhamad Gueye administrateur général ak Abdourahmane Ndaw chargé de levée de fonds aussi membre coordination bi la ba pare moom lañ sant lépp loo xam ne dafa nekk di levée de fonds pour mën a liggéeyal xadra bi fonds bi tey sëriñ bi dañoo ñëw pour indil la million ñaar fukki million yoo xam ne dañ ko bëgg a participer ci liggéey bi doon déglu sa ndigal bu joxee ndigal ñu jëfee ndigal loolu ku ne xam na procédure fond bi dafa yéex dafa dafa jafe maanaam pour génne xaalis sax dafa jafe waaye def nañ suñu itte bu rëy ba nga xam ne euh, génne nañ xaalis boobu pour indil la ko tey de ndax dañoo bëggoon samedi du passé te indiwuñ ko suñ sañoon bépp soxla bu taxaw ne kët ne jonn duñ xaar wala ñuy laaj yi fenn dañuy tibb rek te loolu mooy ittey fond bi loolu la bëgg def itam ndax lii bi ñu sëriñ bi ooyeeg léegi eh, daanaka kenn ci ñoon ñu nekk fi woon liñ bëgg mooy bu doon soxla bi doon cent milliards ñu egg ci boo soxna bi soxla bi di cent milliards ñu man koo génnee ci fond bi eh, li tax fond bi xaw a jawa jafe ci génnee xaalis mooy dañoo am ay dañoo am réglement dañoo am procédure dañoo am ay xaanoon yoo xam ne mënuñ koo jàll ndax ñun suñu liggéey li ñu wax mooy képp koo xam ne dañ laa war a jàppale mu jógee ci ndigal sëriñ bi da ñuy wax li fi nga bëgg ñu jàppale maanaam boo ñu waxee ne lii am nga projet cent lii tabax la lii équipement la lii nangam la ñu ne ñu yow ban point nga bëgg ñu jàpp bu dee da ñu defal ñu gros œuvre ñun dañuy outil entrepreneur def étude dafa ko contrat mu liggéey ñu fay ko su fekkee ne. yow da ngaa bëgg ñu jàppale la ci finition la même chose bu fekkee danga ngaa bëgg ñu jàppale la ci équipement la même chose kon fond bi néew na sax muy génnee xaalis moom dafay jëflante ak directement li nga bëgg ku am projet daal boo xam ne da nga soxla ne lii ci xadra bi la jëm ñu ñëw jël ndigal mu jógee ci xalifa bi loolu nañuy liggéeyee pour mu leer fi nekk ni ñu xam ne fond bi li tax lu xew rek mën a cee buggu lu xew rek daf cee war a dugg lépp lu nekk ci dëkk bi daf cee war a bokk waaye ni ciy bokkee dafa xaw a uute génnee ja xaalis joxe ndax loolu suñ xaanoon yi daf koy bañ suñu luwaay daf koy bañ suñu luwaay yi lim nangu xam nga mooy lan mooy li ma wax léegi am nga projet tabax comme niñ tabaxee eh, école bi comme niñ tabaxee bibliothèque bi comme niñ participer ci eh, lii nga xam ne moom mooy eh, zawiya bi comme niñ jëndalee équipement union islamique bi yooyu yëpp ñun ñoo koy defar suñu bopp dañu lay indil li nga soxla kon lii dafa jàmp moo tax waaye niñ waroon a doxalee mooy ne lan moo des lan la soxla su ko defee ñu def benn appel d'offre seet ki koy defar mu ñëw ñu def moom contrat mu def ko ñu fay ko kon ci gàttal yaakaar naa ne lii moo doon Euh, kàddu yi euh, xam naa ne su matut xëj na vice président mën na ma motali ñu euh, sàkku ñaan di ñaan ci sëriñ bi itam mu gën ñoo ñaax gën ñaax taalibe yi ba nga xam ne ñoom ñëpp dañ jàpp ci pont bi xaalis bi ñuy laaj pour pays bi rek la pour xadra bi rek la pour soxla su taxaw ñu mën koo faj waaye daal bu may résumé mooy ne fond bi biñ ko soseek léegi def na ci xadara bi 400 millions. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di lay ziar sa taalibe sa xarit président Babacar Carlos mbay ambassadeur mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziar ku am yitte la ndax bi ko Cheikh Maay wooyee daf ñëw mobiliser ci saa si ñun ñëpp la mobiliser pour ñu taxaw ci. mbir mi deful vingt quatre heures ñu daal di jël décision xool naka la ñuy def ba génnee li ñu wax moo tax mënuma mënuñoo toog ba dem te jotalewuma la nuyoom ak ziaram euh, moo ñu yebal ñun ñi moo ñu yebal moo ne ma comme yow yaay vice président te yaa nga Kaolack ma ne ko woon maa ngi Dakar waaye ajjuma incha allah mbir na laay jullee ci mu ne ma comme di nga dina la fekk wala boo demee nga jiite délégation bi délégation bi lim nañ ko sànq euh, takku na munoon na sax gën a takku waaye ni mu demee la li ëpp solo mooy ni ko Cheikh baay waxee rek li nga ndigal li nga joxe moom warta moom warta yendu warta fanaan ñun dañoo soxla sa ñaan sa ñaan daay man euh, ndax fond bi xadra bi la fi nekkal euh, te euh, ñaari at ba ñett sax mu ngi nii defuñu levée de fonds te mbir yaa ngi commencé sooxe mbir yaa ngi commencé sooxe te soxla yu bëri nañ kon ñun dañoo soxla sa ñaan soxla yit sa ndimbal lii nii tey bu fekkoonte ne sumb nga liggéey boo xam ne ay milliards la ñaan nañ yàlla fond bi def lépp lépp ndax taalibe am nañ ko mën nañ ko yitte ji moo des te yitte ji mënul jóge fenn lu dul sa ndigal kon nag ñu ngi xaar loolu ñu ngi koy xaar ci yow bu baax a baax a baax président moo ne woon loolu daal naa la ko àggee moo tax ma àggee la ko ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm. salaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Euh, ñu wax sànq te ñu jiite ñu ci fond bi muy le professeur baa nga gisee ak Baye Khady ak l'administrateur général bi teew fii dañoo wax tey ci waxu technicien man nag waxu taalibe laay wax tey waxu taalibe bi may wax mooy baay ki ko fi wutu mooy baay sëriñ bi amul sikk ne yaay baay suñ fi rombee keneen ne ñu ngi seeti Baye duñ ko gis Baye wax na mu ne képp koo xam ne rek doo jot sama doo sama tëbbug jëmm ji am na loo ko loo xam ne doo ko jot lu dul sama tëbbug jëmm ji foofu mën nañ koo firee ne sama doomi deret yi ma forme bàyyi leen fi parce waxaat na ci bayit yu bëri mu mu mu la yow tagg Cheikh Ahmed Tidiane sa mag tagg Cheikh Ahmed Daam sa mag waaye yow bi nga ñëwee mbir yi dafa ubbeeku bi nga ñëwee mbir yi dafa développé wu bi nga ñëwee mbir yi dafa nosé wu bi nga ñëwee ñu ngi comprendre lu bëri waxu taalibe laay wax du ma dugg ci waxu technicien parce que foofa nag laa gën a mëne waaye fii dama yëg ba pare xam ni dañoo toog ak ku ñu xamut parce que Cheikhu tijaan li mu waxoon Maulana Cheikh Ibrahim di ko junj naan ko am na koo xam ni mu ngi ñëw wallahi duñ ko xam fii duñ ko xam fële yow it sëriñ bi xamaguñ la ba tey xamaguñ la ba tey yàlla nañ la xam ñi lay fontoo ñëpp dañ laa xamut xale bu dem ci wetu gaynde jox ko baaraamam c'est parce que dafa comprendre luy gaynde waaye sëriñ bi du ma ne gaynde nga waaye baay nga ci xam-xam ci dal ci modestie ci teey ci bëgg lu baax ak ci bañ a dem ci mbiru àdduna yi ak ci yemale sa bopp ci ni nga xam ne foofu la la bàyyi teg bu dee xam-xam alxuraan yaa ngi koy joxe bu dee tukki mën nga ko yaa fi dàqa tukki te boo demee da leen jëriñ su dee baaxit tabe nga lool comme ni ko bàyyi tabe man waxuma tabek xaalis tabek jëmm laa wax tabek jëmm mooy lan duñ fi ñëw bu fekk nga tëju te suñ ñëwee nga ñaanal ñu fi ñëwit ba nga laaj ñu dara te buñ ñëwee kon buñ demee kontaan saa fuñ la fekk nga ne acca bisimilah boobu mooy tabe mais kuy xaar tabe xaalis perte nga fi perte nga fële sëriñ bi nag waxu taalibe bi mooy lan mooy nga jàppale fond bi ne se reste sax man maa ngi ci biir te say loxo lay demee ak say tànk dara yitteelu ma lu dut yow ñi ngi ñu war a jàppale de deux choses leen soit ay déclaration ba mu leer beneen bi nga taxawal ñu dëggal ñu ba suñ kees gi am quatre cent millions génn na te lépp luy wàññeeku bés a ngi ñëw mu jeex ba ci ay fanu nit rawatina nag poñetu àdduna bi nga xam ni moom lañ téye def ko ci compte bancaire yi neuf cent millions la woon quatre cent dem na cent mu ngi ñu ngi ko placé suñ génnee waatee tuuti dana jeex te chaque année ñu ngi génnee jox ansaaru diin sëriñ bi daf ko fàtte. ak ak yooyu yëpp wax na ko yooyu yëpp wax na ko xaalis bi mi ngi wàññeeku xëy na nag li waral tey ñu mën yenn yi dañoo am ay techniciens yu ko placé ci banque yi muy jur te suma ma juumut. am nañu ko nanguwut parce que seen xam-xam ci lislaam moo leen ko permettre domaine boobu duma ci dugg waaye sëriñ bi ñu ngi lay ñaan nga taxawal ñu nga jàppale ñu su fekkee ne xadara bi dafay liggéey mu am benn kees boo xam ne kees bu dëgër lépp lu xew ñu mën a décaissé ci kees googu def ko ci xadara bi te bàyyi Xadim mii am na lum la waxul te man ñëw naa fi waxtaan ci ak yow mooy couverture maladie pour la famille de Maulana Cheikh loolu ñu ngi ciy liggéey dañoo bëgg képp koo xam ne dafa feebarati ci njaboot gi fond bi dina ko jël en charge xataa dañ koy jëlee fii sax yóbbu ko bitim réew assurance maladie boobu te professeur baa nga gisee mu ngi ciy liggéey ADG mu ngi ciy liggéey Lamine Lo mu ngi ciy liggéey kii moom moo ko jiite Baye Xadim mi toog te loolu incha allah du ñu nelaw mukk tànk defuñu ko vingt millions yi ñu génnee nii lu ndaw la waaye ñun li ñu yëkkati du woon sax vingt millions yi dañoo ñëw pour nga jàppale ñu dañoo ñëw pour nga ñaanal ñu dañoo ñëw pour nga taxawuñu danañ génne vingt million naam joxe ko pour les travaux de l'esplanade waaye li ñuy yitteel dëgg mooy nga ñaanal ñu taxawal ñu maa ngi tëjee nag foo xam ne di la wax ne Fondation Fonds dina bàyyi c'est une institution susceptible d'être contrôlée par par l'État moo tax bu ñuy décaisser xaalis dafa war a am yoon am na loo xam ne ruslu na ñu taxaw ñu ne ñu ngi contrôler Fonds Medina Baye un jour ou l'autre ñu taxawal ñu di ñu laaj duñu mën a tontu ñu gàtt moo tax parfois bu ñuy génnee muy ànd ak facture bu ñu génn muy ànd ak procédure sëriñ bi jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah. xam ne moom la yàlla teg faydu bi tey ci loxoom euh, ñu ngi nuyu délégation bi nga xam ne moom la fi Fonds Médina Baye indi ñu ràññee ci suñ bokk Cheikh ibrahim ñas mu suñ baay Cheikh Ousmane Fati Niass ñu ràññee ci la professeur Banga Guissé nga xam ne sawar naa lool ci taseeg moom ndax lu jiitu fond bi xam naa ay taxawaayam fii ci Médina Baye liggéeyal pays bi ci suuf te kenn xamu ko yàlla dogal man ak moom ñu xam ko kon sawar naa tey ci taseeg moom fii monsieur Guèye Cheikh Abdourahmane Ndaw ak mboolem ñi bokk ci fond bi ñu ngi leen di nuyu di wax ne ñu ngi saisir opportunité bi ndax yàlla bu la mayee bunt da ngay utiliser bunt bi ni mu woon naa ma am force pour mën a féliciter xaadimul umma Cheikh Mouhamadou Maye Cheikh Ibrahim ñas ci tukki bi nga xam ne def na ko ci Cameroun ma seetaan ko ci lu bëri ci réseaux sociaux yi yàlla dogal it ma ay am ji jàmm ay mbokki taalibe yu nekk Cameroun yoo xam ne fu ñu toll ñu ma daan jox ay update ci tukki mi mu nekk liggéey bu rëy boo xam ne comme ni ko moom sëriñ bi waxee dëgg la ndamal pays bi la ndamal faydu bi la waaye ndamal Sénégal la ndamal Afrique la ndamal àddina bi yëpp la sëriñ bi yàlla na la fi yàlla yàggal yàlla nga yàgg a dem yàgg a ñëw ndax foo taxaw pay bi siggi foo taxaw lislaam siggi foo taxaw ñu xam ne ci cheikh al islam alaaji ibrahima ñas nga toog mu bokk kon puso bi réeré wut ci sa kanam yàlla na la yàlla yàggal yaara bi suma kàddu tey nag du suma kàddu président Baye Ciss moo ma woo léegi booboog léegi ma tëggut waxtoo genn wàll ku dégg sama baat xam ne damaa feebar juróomi fan a ngi nii génnuma suma kër mu ne ma cheikh waa fond bi dañuy ñëw ci kër xalif bi damaa buggoon gannaaw bu ma cheikh Macky mu sëriñ bi ooyee ne il faut ñu teew te man maa ngi dakaar mënu may fexe ba teew fu mu nekk nii nga dem teewal ma ma ne ko li may feebar feebar de sawar naa ci dem ci loolu mu ni mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm ngërëm li tàmbalee ci sëriñ bi nga xam ne moo ko wóolu tànn ko dénk ko liggéey bi kon su demee ba nga xamante ne dara desatul lu dul rafetal ah dafa mel ni li tubaab di wax ne maanaam caq bi joyau bi ci gën a rafet ñu ne ana ñan ñu ne waa Fond Médina Baye ñoo ko indi loolu mu ne lu rëy la ci moom mu leen ciy sant mu ngi leen ciy gërëm te mu ngi sàkku ci sëriñ bi mu ñaanal leen yàlla nee na su fekkoon ne mën na ko moom mooy teew waaye yàlla xam na ne gàllankoor moo tax ba mënta teew fii te loolu li ciy firnde rek mooy yaayam bi ko jur mu nga tëdd hôpital bés ni ki tey te mënul fay bàyyi liggéey ya nga xamante ne moom la engagé ñëw pour fekk taxaw si wetam kon su waxee ne mënta teew fii tey loolu ngant la lu rëy ci moom mu ngi ciy jéggulu sëriñ bi ci gàddu yi kàddu yu gàtt daal mooy li bàyyi siis wax ne naa ko wax mu ne daal mu ngi sant mu ngi gërëm mu ngi rafetlu taxawaayu waa fond bi mu ngi leen di ñaanal yàlla te mu ngi sàkku nga ñaanal leen yàlla te xam na ne boo leen ñaanalee yàlla dina ko nangu. te boo waxee sa dëkku sëriñ rek wax nga lu nekk wax nga mbokk yi wax nga xarit yi wax nga doom yi wax nga njaboot gi yëpp mbir nag lépp lu fi nekk rek ñu ngi leen di sawar ci wax leen bisimilah ci seen pays gannaaw loolu ñu ngi gërëm dëgg-dëgg taxawaay bu rafet bii. nga xam ne taxawaayu diine la d'abord ndax luy dundal diine ci dañ bëgg a jël def ci suñu xaalis luy dundal diine ndax loo xam ne bu taxawee lañ fay nekk yépp mooy firi alxuraan wax ci yonent yàlla muhammad wax ci lislaam wax ci lépp loo xam ne dafay takkee nit ak jikko yu kawe yi nga xam ne moom la yàlla bëgg nit nekkee ko ci kaw suuf si donc bon lislaam rek dañuy liggéeyal comme ni ñu ko yàlla sante comme ni ñu ko yonent yàlla Muhammad sante comme ni ñu ko doonee ci suñu bàyyi ñun ñëpp ndax kenn ku nekk ci ñun sa kër bàyyi nga doonee diine demoo ci biti jàngi diine da danga génne sa kër bàyyi fekk jullit nga da nga génne sa kër bàyyi fekk xam nga laa ilaha illallah muhammadu rasulullah da nga génne sa kër bàyyi xam nga doolee alxuraan ci àddina ba tax nga nangu ca yóbbu bu la ci sa bàyyi yóbboo nga nangu ko donc bon ay jullit rek ñoo fi nekk yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ci tànk yi nga xam ne dafay kaweel doomaadama tànk yi nga xam ne dafay yëkkati doomu aadama tànk yi nga xam ne dafay yokk doomu ci tànk yooyu rek lañ bëgg a nekk te du ñun ñoo ko fent mais dañ koo doon ci ay waajur yoo xam ne seen dund yëpp ci loolu lañ ko def seen dund yëpp ñu ngi ko jeexal ci jàngal doomu aadama mu àgg ci darajaay wala xat karram naa bani aadama ànd ak nit bu ko àggale ci darajaay inna akramakum indallahi atqaakum euh, président bi muy wax eh, eh, eh, Abdourahmane ah, mu ne man taalibe laa taalibe buy wax la vraiment dama kontaan ndax bi ma demee Nigéria voyage bi benn buur di ma dalal ma ne hey man mënoon nañu maa bàyyi ci saa yu ba rek ak taalibe ma nekk ak ñoom waaye buur seen taxawaay xawma ko ah musique la taalal la ay ti <laughs> <laughs> Euh, donc bon dama dama taxawaay rek la jamono bu nekk nag yàlla mu ngi préparé nit ñoo xam ne ñooy taxawaay ñooy taxaw taxawaay jamono bu taxawaay ci la lu nekk di bàyyee ci la yëkkatiku di bàyyeekoo ci la nit di bàyyeekoo ci la yeewute di bàyyee ci la xam ci la ci ci la nit di xamee naka lay defee ba yokk ndax moom kenn mënta yokk waaye mook ak moromu itam ñooy ànd yokku alhamdulilah biñ xamee ne ñun buñ dajee bëgg a yokku fi ñuy yóbbu suñu yokkute googu yàq nekku fa luy dolli diine moo fa nekk luy dolli xam-xam moo fa nekk luy dolli nangul nit moromu nitam moo fa nekk luy dëggal aslihu bayna axawaykum ci lañ nekk ci lañuy dugal suñu yëpp bon bu ñu amee ay góor ñoo xam ne ñi ngi taxawee loolu te góor ñoo xam ne ñu ko mën lañ ñu ko àttan lañ ndax discours yi nga dégg fii yëpp di nga xam ne ay capacité ñoo fi nekk ay nit ñuy foraatu nekkuñ fi nit ñu xam ñoo fi nekk nit ñu xam dërëm lu muy tekki ñoo fi nekk nit ñi xam euh, dugal dërëm ak génne ko lu muy tekki loolu yëpp nit ñu mel noonu ñoo fi nekk bu ñu fi nekkee te loolu yëpp xam dërëm ak àddina beeg nangam ak nangam yëpp nga nangoo jël lu em na euh, xaalis bu bëri bii ngeen indi ne nañ ko def ci tabax bi parce que tabax bi tabax lañ ko mën a tuddee waaye euh, yéegukaay rek la yéegukaay rek la <coughs> ndax liñ fiy def liñ fay def yéen ñëpp xam ngeen ko bu ñëwee fekk mu gën a rafet dafay bàyyi ñi ci biti xam ne bu ñëwee dinañ xam ne waa Médina itam ñu ngi liggéey ah taalibe bàyyi ci Sénégal itam ñu ngi liggéey ñi ngi xam li erloog seen pays ñu ngi koy def du pour bëgg àddina waaye pour jàngal àddina bi itam ne yàlla dafa bëgg lu rafet inna allaha jamilun wa yuhibbul jamal bon booy rafetal yaa ngi rafetal ci turu yàlla booy baaxal yaa ngi baaxal ci ngir yàlla te bu ñu amee góor ñu yem noonu mën a koo taxawee noonu ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu set la dara li li jotaay bi lu set la xaalis bi di génn lu set la lu ñëpp ñëpp seen xel yi nangu nañ ko amul ci kenn ku sa xel yi def nii def nii parce que xam nga fi mu jëm lu leer la loolu yëpp bu taxutoon nag ay góor ñoo xam ne xam nañ ko mun naa am euh, mu am eh, eh, eh, waaye alhamdulilah góor ñi ngay jëflante góor ñu xam lañ ñi ngay waxat ñu ñu ñu nangu lañ ñi ngay waxat ñu xam waxtu tànn jotee lan lañ war a tànn ñu xam loolu lañ ba pare tànn ko nangu ko def ko ak discipline def ko ak cofeel def ko ak mbugeel def ko ak euh, namm euh, euh, may yàlla yi nga xam ne du jeex mukk te waxtu woo tàllalee sa loxo jëmee ci may yàlla yi yàlla du la delloo ud'uuni astajib lakum du mooy ngay taxaw di wax yàlla yàlla yàlla yàlla rek mais lii ci façon yi ñaan yi gën a kawe la ndax yàlla moo wax ne anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa min ma axrajna lakum min al ardi wala tayammamul xabiisa minhu tunfiquun li ma leen may génn leen ci joxe ngir man ah joxe leen ci génn leen ci joxe ngir man bon nag jotaay bi génn joxe ngir yàlla moo ko wax te yàlla nee na amul dara loo xam ne yaa ma ko jox te duma la delloo lu lu gën a bëri li ma jox yal yàlla delloo si kenn ku nekk ci yéen ak delloo si ko ci fond bi nu gën a kawe nu gën a màgg noo xam ne dinañ fàtte fàtte ne mus nañoo génne vingt millions pour dugal ko nangam mais fi mu ne ay milliards la ñuy génne ay euh, ah ay centaines de million la ñuy génne parce que suñ tabax bi suñ tabax tabaxu Cheikh Ibrahima bi ñu ànd ne ci lañ bëgg bokk ku ne xam ne ne ëpp na àddina ak li ci biiroon ëpp na àddina ak li ci biiroon ndax euh, bi ma demee Cameroun quelque fois vraiment da ngay toog di xalaat voilà ba jeex doo xam lan la ah doo xam lan la waaye da ngay sant yàlla la bàyyi waxoon ne bu taxutoon ak Cheikh Matiane dinaa dee ak gàcce. waaye bu toxtu nag bàyyi itam dinañ dee gàcce ah ndax euh, euh, lu nekk la la yàlla di woon li ngay gis nii ci nit ñi di ko def yëpp ñoom dañ koy def rek mais yàlla moo lay woon yàlla moo lay woon te jëliyaatam yàlla moo lay woon dooleem yàlla moo lay woon benn waaye bu dëkk Sénégal mën a ñëw fii ci Cameroun def fi lii mu fi def loo xam ne Cameroun yi mënuñ ko dëgg-dëgg am na fa benn groupe sénégalais bu ma gis ñu ne ma ñun fii lañ doonee taalibe Baay waaye waaw Jolof lañ dëkk waaye fii mat nañ fukki nit waaye fii lañ doonee taalibe Baay fii lañ tarbiyoo ah mais leen sant leen yàlla bu ngeen ñëwoon dégg ko ñu nettali leen loo xam ne da ngeen dul sa wax ne senegal ngeen dëkk bon gàcce lay doon waaye bi ngeen ñëwee gis ne nangu ngeen ci dugal seen bopp bon lu kawe ngeen ciy fekk waaye nag da xam ne yéen taalibe ñii ngeen du ngeen taalibe Baay ñii ñooy taalibe Baay <laughs> alors ci kaw bëgg defar ci kaw bëgg suñ pays dund ni pays yëpp te borom pays bi dégle na ci pays bi lu nekk ne lu nekk mën na fee lu nekk mën na fee xew ci yiw ak mbaax ak kaweek euh, xam-xam ak nite yëpp mën naa génn ci pays bi daanaka du du du université yu rëy yooyu waaye Médina yëpp université la Cerno Diop euh, euh, avocat la woon député la woon politicien la woon moo ne daf daan wax ne Médina Baye université mondiale la moom nu la ko tuddee woon Médina Baye université mondiale la ci jamono booba nag seetal nag yëpp a ngi gën a dooleeku yëpp a ngi gën a ubbeeku te nit ñi ñeme nañ ko dawuñ dawuñ lu ñëw rek ñeme nañ ko attan nañ ko nangu nañ ko parce que xam nañ ne yàlla rek moo fi moo fi nekk ak te tëjëliyaatam yu foor ah yoo xam ne dépassé na xel yi ñii waaye am na xel yoo xam ne itam mën nañoo ànd ak te jëliyaat yi ba ni ñu war a taxawee ñu taxawee ko bon ñu ngi leen téléphoné naa bàyyi siis hmm, mu ne xaalis bi nañ ko ko joxal ah Cheikh si sa jéer yi moom mboo ko joxee daanaka jox nga ko ko bon nag ci loxo Cheikh si Diéry lay dem euh, gërëm leen ñaanal leen yàlla bu baax a baax a baax yal na seen taxawaay romb fii gën a kawe yàlla seen yëkkatiku romb fii gën a kawe yal seen ubbeeku xol ngir yàlla gën a yaatu ndax luñ mën a def rek xam ne ci yàlla lañ koy tàbbal tàbbaluñ ko feneen te yàlla nee na boo ma joxee benn man fukk laa lay delloo te te dëgg la te dëgg la ku ku ku dundu Médina 1952 53 ak euh, vingt 2024 vraiment di nga xam ne liñ doon wax dëgg la ah. da <laughs> nga xam ne da nga xam ne ñii liñ doon wax dëgg la ñi liñ doon wax réeru réeraluñ nit ñi mais dañ leen a tabaxal yal nañu yàlla may ñu gën koo mën a sàmm ñu mën koo gën a dëgëral ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla fay leen incha allah li ngeen ma wax ci fond bi dinaa ci def suma kem kattan dinaa ci waxtaan ci nit ñi boo gàmmu jotee dinaa ci waxtaan bu ma waxtaan ci jumaa ji dinaa ci waxtaan euh, ndax itam ci kaw nii maa ngi gën a maa gën a xam important su fond bi parce que man xaw ma koon bu ndax euh, dugaluma ci woon sama hmm, sama sama sama loxo dugaluma ci woon sama gëstu ah. waaye nag tey waxal ngeen na seen bopp noo xam ne dolli na ma xam-xam bu gën a leer ci sama bopp ci fond bi donc bon dinaa ci taxaw incha allah ñëpp noo xam ne bu ma ko defee dina tax nit ñi sawar ak ñëw ci yéen incha allah duma ci dellu gannaaw. yooyu comme comme ni ngeen ko gisee yéen ñëpp ah gis ngeen li ñuy liggéeyal. donc euh, liggéeyu lañu seen liggéeyu seen bopp mais dañuy liggéey pour niñ tuddee seen fond fond Médina bàyyi noonu lañ ko tuddee donc tey tegtale ne fond Médina bàyyi la ndax euh, euh, ñi ngi nii di yëngatu ci loo xam ne dafay dellu ci Médina Baye ah, kese ah, dellu delloo ko ci xam-xam delloo ko ci diine delloo ko ci yonant delloo ko ci màggal yonant ci gannaaw dama daan wax ma ne jumaa ji daal dañ koo rafetal ba mu ëpp daal waaye te jaru ko ñoom jullekaay rek la benn waaye ne ma jaru ko ci jaru ko ci àddina waaye bëggaayu e, e, e, ba bëggu bàyyi yónant ci xolam moom rek lañ bëgg a génne ne nii la bàyyi bëgg yoon yónant yax na ñun tamit loolu rek lañ nii la bàyyi bëgg yoon yónant nii la bàyyi bëggoon yónant gën a kawe ñëpp ah te moo gën a kawe ñëpp itam yàlla ñu ci yàlla dimbale ñu bokk ci taalibe yónant yi nga xam ne ci yoonu yonent yi rek la nekk di liggéey salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. teg ci loxo xalifa bi mu teg ko ci loxo Cheikh Jéeri nga xam ne moo fi teewal Baye Ciss muy un montant de vingt millions donc voilà merci. صلاة الله